asalaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp di leen ziar te di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xam te ni ñu ngi topp suñu vidéo di leen rappeler aussi que numéro bii ngeen di gis mooy sunu service commercial képp koo xam ni dafa am lu muy jaay ak lu mu mën a doon meuble oto moto téléphone yére wala sax mu am kër gu muy loué bëgg mu am visibilité incha allahu bu ñu contacter dinañ ci waxtaan ak moom alors tey waa lu xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo buy concerné toujours li nga xamante ni si moom la suñu doomi réew di dund ca Mauritanie mais bii nag dina xaw a wute parce que réaction bi benn doomu Mauritanie moo ko def koo xam ne nee na fa la juddoo fa la yaroo fa la màggee et ci biir réaction am dañuy gis ni d'une part dafa weddi li nga xamante ni si moom la ñu waxoon ci vidéo bi que ni doomu Sénégal la ñuy dund Mauritanie lu metti la moom ci gis-gisam dafa jàpp ni doomu Sénégal yooye ñoom ñoo nekkul en régle maanaam seen séjour soit moo jeex wala yoruñu ay kayit yoo xam te mën na leen a ñu nekk ci dëkk ba d'après sunu gis-gis moom ci ni mu waxee. donc bu mu ñu contacter jot nañu waxtaan ak moom tuuti waxtaan boobu lañ leen bëggoon a tegal bàyyi leen yéen kenn ku ne xalaat boo ci am nga defal ñu ko ci commentaire yi donc ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xam te ne moom la ñu wax ak moom. alors ça sama sëriñ ça va def ça parce que ça sinon ça va comment vas-tu ça va bien alhamdulilah marhaba bik marhaba bik wa xeet ça man euh, dama bëggoon vraiment ñu waxtaan si am na benn vidéo bu ñu yónni fii. Mauritanie ñu ni dañu kii sénégalais dañ leen di raafal dañ leen di maltraité yi mel noonu si loolu laa bëggoon ñu waxtaan ko fekkee na mun na nekk parce que déglu naa vidéo bi très bien man Mauritanien man Mauritanien la père et mère comprendre te dama ñuul suma taxawee munoo ma ràññee diggante Mauritanien ak sénégalais c'est compris Mauritanie fii munoo ràññee am na suñu taxawee munoo ràññee diggante Mauritanien ak sénégalais. comprendre kon moom lu mu wax c'est vrai que ramas dafa am mais fan lan la fekk ba ramas la lan lan la def ba lan lan nga def ba ramas la am am na ay doomu Mauritanie yu ni ramas ramas am na ay doomu Mauritanie yu ni ramas mais fan lan la fekk ak lan nga def ba nu ramas la dégg naa ko nga laaj ko benn question ndekete sénégalais la ñu gën a miin que ni ramas wala des étrangers c'est pas vrai dañuy retra ramas étranger yëpp koo xam ni amoo ay papier complet man je suis contre la mu lay wax lii romance bi je suis contre romance je suis contre romance romance bi je suis contre mauritanien la mais je suis contre romance dama ko contre neexuma mais dëkk bu nekk dafa am ay charte yu mu tëral dëkk bu nekk dafa am ay conditions yu muy doxalee ni nii lan lay dox am na ay sénégalais yu nekk fi macha allah man sénégalais yi laa gën a miin tel que yeneen étranger yi yeneen étranger yi muy malien muy ghanéen muy yeneen yeneen yeneen yeneen race yoo xam ni aw ma ak ñoom affaire sénégalais laa gën a minacé parce que man ak sénégalais benn lañu amul munoo jël benn différence diggante mauritanien ak sénégalais xanaa ñu taxaw lakk xanaa nga taxaw làkk te man effectivement kenn musuma dox ba nu laaj ma kii et pourtant soo ma gisee mun nga mun nga kii mun nga ma teg effectivement sénégalais la mën suma dox ba nu laaj ma këy ah, mais fan la fan lan la fekk ak lan nga def ba nu ramasse la loolu mooy question bi ah, te bëgg naa ñu waxtaan si très bien wallahi sama sëriñ te fu mu nekk euh, vidéo bu nu woon bi effectivement que vidéo bu foofu police la mais pourquoi duñu wax effectivement que ni ñooy police police la te et puis dañ leen tëj c'est parce que effectivement foofu kaso la Ah, dañ leen jàpp c'est des dañ leen jàpp effectivement que fraude soit amuñu ay kayit amuñu seen séjour tu as compris wala nga doxantu amoo kayit amoo dara amoo carte d'identité amoo dara amoo pièce effectivement que euh, ñu jàpp la te et puis nga ni ko exactement euh, ni kan moo kan moo dem jëli ji kan moo dem di jëli ji pièce ñun fii ay Mauritaniens la am nañu ay xarit sénégalais. à chaque fois su suñu amee problème ñun ñooy taxaw ak ñoom ñun ñooy dem récupérer seen papier wala ñun ñooy dem euh, euh, génne leen foofu tu as compris comme comme génn de comme ñaata xarit sénégalais la am avec ci ñu woo ma ñu ni ma def am problème pièce yi mel noonu ma dem récupérer ko day am mais aussi encore euh, dama bëgg kuy wax na wax yàlla tax na wax dëgg exactement nii ak Sénégal benn lañu mënoo effectivement def différence diggante Mauritanie ak Sénégalais mais su demee ba di wax man je suis pas contre mais su demee ba di wax na jaar si dëgg bi mu wax dëgg bi exactement mu ni condition yi lii la dañu jàpp ne état bi essayer négocier affaire de séjour bi ne état sénégalais ak Mauritanie ñu essayer régler affaire de séjour exactement et des trucs comme ça loolu mooy yoon mais pas effectivement nga laaj ko yow nga ni ko ndegam lii yéen kas ndegam sénégalais ko tàmm c'est pas fi Mauritanie Sénégalais leen gën a respecté képp étranger bépp étranger Sénégal leen Sénégalais leen gën a respecté moom leen gën a man wallahi alazim billahi la ilaha illa illa huwa wallahi alazim sama kër mun ma fa dugal euh, beneen étranger mais sama xarit sénégalais dañuy ñëw fee fekk ci mag sa parce que ñu munoo amul sama dig amul différence diggante ñun ak sénégalais yi munoo ràññee kii sénégalais la kii mauritanien la amu fii dañ lay laaj sa kayit sa kayit nu soo amoo sa séjour sa kayit mot kenn mënu wax dara combien de sénégalais ñoo ngi fi di macha allah na benn problème ah, ñu ngay gis ñuy casse effectivement c'est parce que nekk nu dans les nekk nu si dëgg ñoom ñu ngay gis ngay casse nii nekk nu si dëgg moom ngay gis ngay casse nii c'est vrai que am na. mais mu fii état bi mu policier muy gendarme muy garde muy keneen mënuñu romance koo xam ne effectivement am na këyitam yu mot mënuñu ko sañuñu ko sax lii c'est vrai dañ waxante dëgg effectivement parce que effectivement dañ wax ñoom effectivement dañ wax exactement ni dafa bëgg état bi négocier euh, affaire de séjour bi mais pour exactement ni sénégalais rek lañu tàmm fii di ramasse loolu c'est pas vrai loolu c'est pas vrai wax foo dëgg waaw salaamaaleykum Cheikh bi ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi ci jàmm d'accord dégg nañ bu baax li nga wax léegi question bi ñu la bëggoon a njëkk a laaj mooy tey comme moom dafa dox dafa am lu mu dund mu expliqué ko yow tey nga ñëw weddi daal ni c'est mais je pense que nit ki buy weddi li ñuy weddi na ko teg fu fonde léegi yow fan nga teg que moom li mu wax amul. est-ce que da xam moom ci yan condition lay dund wala lu mu demee nga bu baax a baax fan nga tekk moom li mu wax amul c'est faux. bi safa def safa man di première gars weddiwuma li mu wax li exactement parce que dunduma ak moom xawma ko xamuma effectivement mais man fii laa dëkk Mauritanie fii laa juddu fii laa mag ba day ni alhamdulilahi rabbil alamin kon amul lu ma xamul ci Mauritanie lu ma xamul ci Mauritanie mooy man benn je suis contre Raf Ramas bi je contre amul woon moom lu mu lay wax effectivement que ni yàgg na kon moom yàggu fii ci biir Nouakchott kon Ramas bu muy am sa fait même pas ay quatre ans deux ans trois ans comme si si si si si si si les dernières années là commencé Ramas yi am effectivement que des trucs commencé ces jours yi am effectivement que ak ay kenn xamul lu tax Ramas di am c'est parce que crime yi dañu commencé bari crime fii dañu commencé bari ay crime crime yi commencé bari exactement des trucs loo xam ni. bon bari na ay crimes yu nekkoon loolu moo tax gendarme mooy euh, gendarme am na session bu nekk quartier bu nekk am na ñu fay doxantu mooy policier yi am na fan la fa fan la ñu nekk gendarme yi am na fan la nekk garde yi am na fan la ñu nekk secteur bu nekk euh, si euh, armée bi am na fu fu ñuy doxantu loolu moo tax ñu tasaaroo armée bi ci biir dëkk bi pour mesure de sécurité comprendre te man xawuma ko mais ci biir Nouakchott la dëkk. fii laa mag ba toll nii alhamdulilah rabbil alamin am naa quarante et quelque kon euh, du ma du du du ma du du du kenn du ma wax Mauritanie kenn ma wax Nouakchott waxuma leen Nouakchott sax tuuti ma kenn ma wax Mauritanie souvent Nouakchott fa laa judd fii laa mag fii ba ma toll nii alamin xam naa ñuy dox du ma mooy kase mais effectivement xam si sénégalais fii macha allah. lu ma xam si sénégalais macha allah alhamdulilah rabbil alamin te yëpp samay xarit lañu am moom suy wax na wax effectivement que moom lu tax nu jàpp Karafal ba si ban condition dëkk bu nekk waxoon naa la sànq dafa am ay charte yu nu tere yu nu teg ci bi seen dëkk yow comme exemple léegi fee Sénégal foofu Sénégal ci biir Dakar ex étranger mun na dawal taxi. foofu étranger mooy dawal taxi c'est parce que bon seen short léew ñoom dañ ko tere dañu tere étranger mooy dawal foofu taxi c'est vrai mais fii ñun effectivement étranger dañuy dawal taxi et surtout sunu mbokk sénégalais ñoo fi gën a bari lu ñuy dawal taxi sénégalais ñoo fi gën a bari si gën a bari taximaan yi ñoom macha allah te ñoo ngi dund macha allah du moom kese moo fi nekk comme sénégalais mais fan lañ ko fekk bara raafal ka si condition moom mënul am ay kayitam complet effectivement que fii soo amul séjour dañ lay jàpp mais lan ngay def à chaque trois mois wala à chaque deux mois bon je sais pas effectivement que si yan commune de mois à chaque fois da dem jéggi ji nga defar sa nga defar sa euh, devise bu bees nga am devise bu bees nga duggat encore ça sa sa sa sa rien de tout nga dem fii ba Rosso Pass bi même pas 3000 ouguiya 3000 ouguiya nga jéggi dem bàgg fee nga defaraat sa sa sa sa devise devise mooy lan 50 euros sa poche la jëm joxo ko kenn da ñëw defar devise bu bees nga dugg bu bees nga duggaat c'est très facile ah. sëriñ bi ñun dëkkunu mais euh, dëkkunu Sénégal mais xam noonu effectivement que lii xew foofu mais moom lu mu wax li exactement man je suis pas contre mun nañ jàpp hmm, ak fu nu nekkoon fi effectivement que police lañ nekkoon foofu fu nu nekk fii foofu la ñuy jàpp suñu jàppee étranger foofu lañ koy dugal comme suñu jàppee clandestin foofu lañ koy dugal exactement c'est après foofu lañ lay jàpp ñu yóbbu la frontière yi ñu raf refoulé la frontière yi même des Maliens des Ghanéens lu nekk race bu nekk mi ngi fi chaque fois dañ leen di jàpp ñu refoulé leen hmm. am na benn euh, malien buy liggéey fii juste à côté moom euh, tàngana tàngana la yore day jaay ndékki jàppoon nañ ko fii amul séjour séjour am dafa jeex mais nu yóbbu ko ba frontière mu daggat encore devise yu mel Mali après mu duggaat dafa defaraat kayitam après mu duggaat c'est ça c'est très facile mais su waxee dañ leen sonnal pour sénégalais yi dañ leen fii dañ leen nangam dañ leen nangam loolu c'est comme si. Euh, dafa indi problème diggante Mauritanie ak Sénégal ça c'est kii gaa kenn du ko def dañu sonal dañu nangam dañu nangam c'est comme si ñoom kase yow laaj na que nga ni que ndegam yéen kase la mu wax la dëgg muy la non non non étranger yëpp képp étranger effectivement que soo amul soo nekkul dans les règles dañ lay jàpp yóbbu la effectivement que refoulé la parfois nag am na soo amee ay xarit wala ay mbokk yu mel noonu dañuy ñëw def intervention arranger problème effectivement ñu bàyyi la jël jël la garantie loolu chaque fois def fi am. loolu kenn waxu la ni amul mais c'est pas parce que effectivement que ni sénégalais yi kase lañu visé ci yooyu c'est pas vrai. d'accord grand bi dégg nañ lu baax li nga wax kon daal maanaam yow dàqu li mu wax mën na am ñi ngi koy jàpp mais danga gis ni yow kon buñ ko jàppee moom moo nekkul ci yoon maanaam nekkul en règle moo tax ñu jàpp ko foofu nga bëgg a waxe ok léegi bëggoon naa wax tamit ñu déggoo ci benn point. peut-être que li nga wax ni tamit aussi dëgg la yàgg nga Mauritanie fa nga juddoo fa nga defee lépp kon xam nga Mauritanie mais tu penses pas ni tamit biir Mauritanie am na injustice parce que ñun Sénégal gi ñu nekk des fois nga gis fi policier mu jàpp la wala teg ci yoon du la teg ci yoon de wut lu am ci yow est-ce que yaakaaroon ni tamit moom bokkul ñi nga xam ne dañuy dund ci injustice bi nga xam ne moo am Mauritanie parce que tey policier war na laa jàpp war la delloo pour nga dagg séjour mun la soo ma joxee temps maa lay bàyyi wala mu ñëw fekk la nga nekk en règle mu jéem la créer pour am ci yow dara yooyu dañ koy gis ci dëkk bi kon est-ce que jàppoo ni moom li muy expliquer noonu moom dafa bokk ci ñi nga xam ne day dund situation yi mel noonu biir Mauritanie te du moom doo moo ko wax de am na ñeneen ñu ko confirmer am na ay messages yu ma jot ñu confirmer ak ñi nekkoon aussi tamit ci biir prison boobu ngay wax est-ce que ñoom ñëpp mën nañu àndandoo wax benn chose bi ba pare mu doon loo xam te ne ñu créer la. Euh, oui c'est vrai dégg naa li nga wax man euh, mënu ma la wax effectivement lii injustice c'est partout muy Sénégal muy Mauritanie muy France muy Amérique muy Belgique injustice c'est partout fu nekk am na injustice policier aussi encore li nga ko tàmmal rek la soo nekkee ci yoon policier su la jàppee mu yóbbu la yi soo daggee nga dugg policier moo la jàpp mais su ko soo ko neexalee suba aussi encore daf lay wër soo ko neexalee tey parce que nekk suba daf le karaat encore ci même yoon lan lan lay ñëw pour neexal ka parce que xam na ne effectivement ka nekkoo nekkoo en règle te soo ko bañee mu yóbbu teg la fee prison comme li xew li mais soo defee sa sa soo nekkee en règle benn policier mënul ci yow dara soo ko rombee suba mu gis la suba nga dugg mu waxaat la mu ñëw nga wan ko sa kayit dana dem mu xam effectivement mënul yoon dafa am. yoon fii Mauritanie dafa am yoon c'est vrai que injustice mi ngi fii mais aussi encore am na yoon su fekkee policier su nekkul woon si su nekkul si dëgg nekkul si dëgg ñun fii Mauritanie amoon na temps benn problème fii bu amoon citoyen yi ñoo taxaw àllu policier yi c'est à cause à cause du ñuy daqee étranger yi dañu nekk di daqante ak étranger yi ci biir koñ yi policier policier rek la muy policier Mauritanie muy policier Sénégal muy policier France soo soo leen ko soo leen joxee dara rek c'est des corrompus soo leen joxee dara rek ñu jot lii mooy dëgg mais mu leen dama ñaar sama mbokk sénégalais effectivement man lii lii rafle bi je suis contre contre naa rafle bi trop wallahi je suis pas pour dama contre rafle bi mais rafle bi du pour sénégalais yi kase ni malien ni burkinabé ni euh, ñëpp ñëpp ñoo sunu suñu la jàppee amoo kayit dañ lay jàpp yóbbu la soo leen joxee dara dañ lay bàyyi suba encore ñu jàppaat la ñu yóbbu la loolu la ñuy wut mais suñu gisoon effectivement ni ñëpp ñoo ngi si règle nga dem def di sa kayit yaa ngi si règle kan suba duñ la wër loolu mooy dëgg te ñu bàyyi lu ñuy def li Sénégal nii Sénégal Mauritanie benn Sénégal ak Mauritanie benn la man am na ay mbokk Sénégal Sénégal am na nañu ay mbokk Mauritanie ba Sénégal ak Mauritanie benn la comme li ngeen koy wax yéen benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar comprender soo sooy wax nga wax loo xam ne effectivement moom mooy yoon mooy loo xam ne effectivement daf lay day day jëm loo ñaari réew mi en avant day avance loo ñaari réew mi. mais ngay wax wax boo xam ne effectivement que pour ñaari réew mi mu gën a ñu gën a am problème loolu moom sa sa mbokk xanaa ngay lor fee wala sa mbokk yi nekk Mauritanie ngay lor wala sa mbokk yi nekk Sénégal ngay lor mais man je suis pas contre euh, euh, contre sénégal Sénégalais contre moi peuple étranger ma contre moi gars étranger parce que man damay voyager dem feneen tukki ji feneen étranger lay doon kon war na ma respecter comme lu ma war a lu may respecter étranger yi nekk en Mauritanie comprendre mais dama bëgg exactement yéen ñi am ñi joxe information yi yéen ñi nekk si réseaux sociaux yi effectivement que suñuy wax nañ wax effectivement que loo xam ni daf ñu du ñu indil problème nañ ñaax ñaari dëkk bi autorités yi nañ jéem a dindi devise bi nag diggante Mauritanie ak Sénégal wala séjour bi nag diggante Mauritanie ak Sénégal ndax réew bi gën a avancé nañu arrangé problème boobu mais pas effectivement que euh, dëkk bi nii la mel euh, dañ li maltraité dañ li mal nii dañ li mal bi man juste contre maltraité boobu la contre su la maltraité rek sa parce que yaa ko def sa bopp man su ma demee Sénégal su ma maltraité maa ko def sama bopp peut-être yaa ma fun ma fun ma fun ma yam loo am na ay sénégalais yu nekk fii macha allah amuñu benn problème am na ay sénégalais c'est des directeurs de société fii comprendre am na ay sénégalais yoo xam ne fii ay directeurs société lañu ñoo ngi gérer ñoo ngi dund seen dund normal amuñu problème.